bisimila mbokk internet yi dal leen ak jàmm ñombelu rëy kawtef gu mag la ñu nemmeeku ci diggante Louga ak Ross Béthio waaw ab seet bu bees moom la far wa ëmbal mu làqatu wasin daal di suul liir ba allahu akbar lu doy waar ab xale bu jigéen moom moo sëyi ci yàggul dara far wa ëmbal ko ba ko jëkkër ja yégee ca la daw nëbbatu wasin ray doom ja way takk der yu gendarmerie Ross Béthio ñoom ñoo ko teg loxo ña nga ko jàppee ca commune du nord du Sénégal guddib alxamisa jàpp ji ñu génn ndaw saa ngi dëkk Louga ca quartier artillerie tur wa ci mbind ma nga tàmbalee bee muy am ci lu tollook ñaar fukki at ginnaaw suñu ko mayee ci lu yàggul dara ca la jëkkër ja yëg ne dafa ëmb te du bàyyi doom ja bi ndaw si yégée nii jëkkër ja xam na nii dafa wann lor ca la daw dem Ross Béthio fa la làqatu moom ndaw sa nag ka ko ëmbal mooy farwam doon génnal bu ñu sukkandikoo ci waa journal l'Observateur moom ndaw si li ko tax a daw mooy dafa bëggoon a sori bëtu ñi ko wër dem fu ko kenn xameewul looloo ko yóbbu na ci këru ba kenn ci ay mbokkam fa nekk ba wasin ci lu kenn yëgul fu kenn newul mu gas fa kamb ba mu xóot liir bay jooye mën a ko tembang ca biir pax ma ay ay lii laa ilaha illallah allahu akbar man day ndaw si moom ma gën a dëgër fi bu ñu sukkandikoo ba tey ci suur journal l'observateur ca ëllëg sa rek ca lañ ko dal di yëg feeñal gendarmerie teg ko loxo la gën a doy war nag ca mbir ma mooy ndaw si dafa weddi mbir mi ba mu set wecc waaw ci waxtu woo xamante ne way l'enquêteur yi ña ngi ko doon déglu ndaw si nee na moom mësta ëmb sax bay wasin <laughs> je n'étais pas enceinte donc comment pourrais-je accoucher xam nga nag bu ñu la niitee ba gis la nga leer nañ nga ne kii du man kenn mënu ci dara lu ci mënti am way sapeur ñoom def nañ examination ca néewu liir ba laataa ñu koy yóbbu ko ca morgue hôpital Richard Toll moom mi weddi mbir mi nag way takk dér yi déglu nanu ko ba noppi ma nga ca garde à vue te defal nañ ko procès verbal ba noppi tey ci altine ji lañ ko fas yéene déféré au parquet ca Saint-Louis maanaam Ndar Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal